Fatou Laobé baalu na ko àq. et que moom itam baalu nañ baalante nañ àq parce que c' était un malentendu de leur part. bi nag ñëpp koy seetaan ndeysaan réaction yi ci saa na ma ci wax na ma lu ko saf man Penda. parce que Penda aussi def na vidéo donc loolu lundi il faut nga ñëwaat. waaw vidéo bi dinañ ko ci ko teg. non yokkaat dix minutes. duñ ci yokkaat dix minutes. a war a war a war a gudd jeex de. xamal askan wi. Mm-hmm. Mm-hmm. a ngi xaar bu allah émission suba midi incha allah wax leen mm-hmm. euh, mën naa ci ànd ak bigi ñu dalal ki nga xamante ni moom moo di Ketchup ñenn ñi di ko woowee Boucher mu def nag ay révélation yu doy doy waar actualité people bu nga xam ne en exclusivité ñun. waa Sen TV ñun ñoo ko am du lu ñu foree ci benn site internet suba daal ku ci bëgg am plus d'information il faut regarder la Sen TV à midi. <laughs> midi pile. invité ngeen ko neex Ketchup ngeen invité. waaw Ketchup ku baax la invité ngeen ko neex. bien. bien loolu la ñu tàggoo ko. Mm. jox gars yi rendez-vous lundi incha allah. ma fàttali leen que ni weekend sax mun ngeen profité di woote ci serveur bi pour mën a am lundi incha allah iPhone 11 bi parce que lundi la ñu koy jox ki ñu koy may Jeanne. ba lundi incha allah. bay neige ndéem maman à lundi incha allah. nañ leen ah. di wax luy dugg ci xol del yeete di wax luy dugg ci xol del yeete sooy mama wax ko loo xam ne bu ko déggee xol ba naat lu bees a bees bees a bees mama lu bees bees lu bees a bees lu nga koy déggee xale bi na moo faale woo Beyoncé Elle est jigéen nu moom moo rasul sa papa DJ Perez moo ma njëkk tuddee VIP ca RTS dama yaay VIP bongo maa nii nañu la roy sama baay boobu yàlla gudd fan animateur di DJ am personnalité DJ Perez bàyyiwuma moo yàgg maa conseillé ba tey foo ma gis di ma wax lu baax ma wax ko pourquoi